sëñ Abdou Lahad defoon na fi ubbee bu am solo boo xam ne dañuy jàpp ne lu weesu rek weesu na waaye saa su nekk lu xam-xame day dekkiwaat bu jotee dañ koo taxawu ci ay xari tabaski ku nekk bind ko leetar ñenn ñu waxal ko ko seen bopp mu jox ca ñam ca mën a jox bañ ne suba la nag mbooloo mi xëyandoo ne tey bu jàllee tabaski jàll na te xamuñu ne it ba tey tabaski ñetti fan la fukki fan ci weer wi ak fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar muy ñetti fan saa bu ko fiir amee mën naa tabaski waaye jërut jënn firfir ji su ko mënee am daal ci teey bañ caa sonal kenn na ko wuti su ko yurut denc ko it te bu ko wóoree ne bu lebee mën naa fa it ba tey moog lu mu denc ñoo yam waaye sëñ bi def koo gàttal dañ ne suba la ñépp ñëw fekk ko ci kees gu njëkk gi ci këram ku xam ko suñu blaat kees ga moom yi soppiku soppikoogu ca ba tey moom ma nga fa mu soonu na ne kuy laaj tabaski rek na ñëw bay leen ko mu agsi ñu laaj koo laaja laaj mu jóg taxaw ne yéen ñi daal yéeneen yi amul ay tabaski mu ne wut ngeen wut wutule am amu leen ñu ne déedéet mu ne dencu leen ko fenn it di ko korkoral di wuti ñu ne déedéet yaakaaru leen ko fenn it ñu ne déedéet yaakaaru leen it ne su ngeen lebee ngeen mën a fay ñu ne déedéet nag mu ne yéen kon wàcc na leen dem leen ñibbi mu yomb lool waaye nag bokk yi ñu junj tuuti wax ak ñi nga xam ne dañuy dajale limub xar yu bari di lañ ko jox ku ne xam na ni kenn ku nekk menn xar koy war mën na ca yéene waale waa këram na ko sallallahu alayhi wa sallam defe woon ñam yéene waale woon nañ ñam yéene waale woon ëpp nañu ak kër moo xam ne benn gàtt kese bu ko reyee ci këram rendi ko rey ak rendi nag du benn bu ko rendee ci këram mën nañ caa bokk mën na ko bokk njabootam gépp waaye nag wàcce ay nangami xar yu bari buñ ko fa wàccee ca lañ koy mujj a gisee it jullit yi bëgg a tabaski fay ne fu dugg fa it loolu it lu mat a seetaat la te it luy da war a dawal aw yaram la ndax ci suñu suñu dëkkin am na si ñooñ ñàkka ren di am xar ci bisu tabaski jaral na leen gàddaay ci dëkk ñooñu nag dañoo mat di gestu ndax yu ñëw noonu rek sa dara de monsieur le ma dañ la ko indil képp nag war naa mën a yaatu loolu dañ ko loolu faaw ñu xamaale ko ci waaye am na ñooñu li ñu yéene ci tabaski du yéene ju jaamu yàllaa ko tax a jóg da ngay dégg ñu naan jëndaguma am xar waaye su madam amee rek mu baax su madam amee mu baax madam ci njaboot gi la bokk dama koy waxee ni ko waxee rek madam defe naa mooy soxna sax lañ ci jublu bu ñuy ànd moom bu ñuy ju bu ñuy am xar ànd ak moom mu tànn ma ko gënal loolu it yàlla amagu ci place léeg-léeg am ci koo xam ne jafe yam cay am day jaare noonu génn këram dem ndax xar ma madam di soxla jibam attanu te bu ko lebee dana ko topp lu yàgg mu di ko xalaat mën na koo tee nelaw loolu it yàlla amagu ci wàll na ci jullit yëpp yeew li ci dolli ko it mooy léeg-léeg ñu jox ko ñoo xam ne it suñ ne nañ ko joxe it ñu ko denc li mu xar yu bari yi nañ ko jox ña ko soxla waaye léeg-léeg ñu tënk ko di ko joxe ñoo xam ne ñi kenn ku ci nekk mën na la caa indil maa ngi koy jox juróomi moroomam wala fukki moroomam ñooñu it leneen la tudd loo xam ne du yàlla léeg-léeg it nit di wër di ko laaj te ñañ koy laaj duñ leen ñemee bañ a jox loolu it yàlla nekku ci yàlla ak amu ci wàll su ko defee bu ñu ko dajalee ba mu daje yàlla xam nu ñu koy def waaye danañ ko rombale koo xam ne moom ma nga toog doon ko xaar doon ko nekk ba yàgg ba yàgg yaakaaram tas ab jullit nag wóota tas yaakaar yi moroomam jullitam loolu it lu mat a bàyyi xel la ñu bàyyi xel ne it suñu àggee ba ca bis ba euh, wër gi ñuy wër ay kër di nuyoo it lu saxaabatu rasul daan def la ridwanullahi taala alayhim ajmain ana lañ daan waxante yàlla na yàlla nangul li nga jublu ci tabaski mi kenn ke ne ko amin ak yow waaye nag léegi ana fu ñuy daje war a waxante baat yu baax yooyu yàlla yàlla nañu ci yàlla musal dañ naan ku añ na raxasoo si barab sàngam barab sàngam la fay xew ku ne xam na ko foofu it ab jullit war na ko bàyyi xel bu baax li ku ne fu nit bëggul dee fekk ko fa bu mu fa dem fu nit bëggul dee fekk ko fa rek bu mu fa dem te nit dee mën naa fekk nit fu nekk jóge ci jaamu yàlla nag faatu gannaaw bi mu fekk ko fudut fa yàlla santaane loolu kooku suñu borom àtte na ko ba noppi wax na ne ku jëm ci lu baax faatu ci yoon wi lam yéene woon la ko yàlla di fay waaye ku jóge ci lu baax it ba def lañ ko ca santoon jóge waat fa jëmaat ci ay caaxaan it su faatoo ci yoon wi caaxaan yam jëmoon ca la ko yàlla di àtte amul soxla ci lam jóge woon tabaski nag lu bari ay ngëneel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku wutum tabaski na mu ko war a wutee defe ko nañ ko ko sante fas ca lañ ko ca sant mu fas ko bu fi bàyyi ko ba suñu boroom joxe ndigal ñëpp génn ci seeni bàmmeel mën naa fekk am xarum tabaskeem toll ni lu mën a sëf lu mën a yanu nit yóbbu ko fa mu jëm mu taxaw kawar gi di melxat mel ni wurus ba di wex tal mu mel fuuf dal nu gën na meloon ba muy tabaski te bokk yàlla rek mooy boroom kàttan te mooy boroom sañ-sañ yàlla moo wax ne amut lenn lu mu bind lu lu lu dul loolee ma ngay tudd yàlla waaye nag ñun nit mën nañ ko bañ a dégg su boobaa nag yàlla nee na du laaj nit yi ñuy wax ci seeni làmmeñ waaye seeni ci rey wax noonu mu ko mënee si ñun wax na ko ci alxuraan noonu la ko mënee ci lim bind lépp nit kooku nag xar mi tabax taxaw ci buntu bàmmeelam moo naan yow la kan gis ko rafet lu rafete ne yow lu rafete ne yow mu ne ko moom de mooy tëbëskee mam daan tëbëskee te yàlla dong dong taxoon mu ne ko léegi nag doxub fii ba fa ñuy àttee ni mu loolu it mbokk yi bu dul woon e, lii ñu ci def yépp muy lekk ci ba suur denc saraxe it daf koy jar ndax lii ñuy lekk ba suur saraxe denc lu mu yàgg-yàgg ku ne xam na fa muy mujj fa muy mujj kenn bëggut mu def sa kër suñ mag bi jàngal ne ko ci mën a wér sudóor lekk ak naan bu mu la jaral dara ndax boo xamee fa muy mujj moom du la ko jaralati donte nag lekk ak naan ndigalu suñu borom la mooy tax ay yaram ci dund waaye lay jëm ëllëg tàmbalee fii moom day ëppug mujj lu tàmbalee fi yam fii kese moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam it nee na bisub tabaski gi yàlla nit defalut yàlla lu ko gënal rendi ci am xar ndax xar moom muy rendi day gis ne bu ko rendee deret gi day wal jëm fu nekk xar mi yëngutu ba yàgg mu ne cell ne tekk ñu daal di koy fees tasaare ko séddale ko mu jeex waaye yàlla nee na dara daraam du neen moom ndax foofu ñu koy rendee deret ji wal am na fa suñu borom joxe ndigal ñu di ko fa dékk ngir mu doon seere bu ëllëgee su ko defee bu ëllëgee mu boolee deret joojee doon wala yax yàgg lépp te gën ko jëmm ju taxaw dim xar mel na meloon loolu yomb a xam ci ñax mi rek waaw ñaxum daaw ma ak ñaxum ren mi bu demee ba fa àgg fa yax ma àggoon daaw ci ñor du neex a ku mus sa gis ku gisoon ñaxum daaw moom day defee ne ñax ren rek la am waaye su ci kanamee tuuti ba yàlla jëfandikoo ci coobareem it noonu lay melaat mel ni ñax mus a sax ci àll bi waaye bu tawaatee mu mel na melaatoon noonu ko yàlla ne ci suuf si ak ndox mi noonu la ko mëne ci lépp lim bindoon ndax moo moom mooy badiu samawati wal ard badiya loo gis mu ne mu ne fi barab rek moom moo ko fa moo ko fa def te dimb kenn dimbaliwu ko ci dara su ko defee di ko sidna Ali di leeral daf ne saa bu nit ki tëralee bi sax rek rendi ko bu ko tëralee képp ko kawar yi tëdd ci suuf yàlla xam na lim ba nu mu toll benn bu ci nekk yàlla daf ko ci fay xasana man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaliha kon ku ne xam na ne loolu pay gu bari lay doon yàlla nañu ko yàlla defal li ñuy jeexale nag mooy ku jógu bëgg a wuti ab gàtt na dal di lagg rek ci boroom xam-xam ba mu dendaal su dee waroomi xam-xam ku mu ca jëkk a jot baax na mu ne ko am tabaski ni muy mel am tabaski ni muy mel nag ku ko bëgg a xam na xool moom su amoon ngénte loo xam ne fonk na ko rek gàtt ba muy jënd gàtt bi tabaski mooy am tudd mooy matum tudd am na nag lu xew ci jamono loo xam ne jamono ko ale nit ñi wala wala jëm ca am na xar yoo xam ne fii ci réew mi saa su nañuy wax ne réew mi dañoo tëj ba mu ëpp lool waaye bari na lu ñu fiy yéem lool te am na fa boo fa demee xamuñu lu dul loola loolu rek lañ am ci alal am na fii ay xar yoo xam ne gëstu wane na ne juróomi weer rek su ko amee day ëpp suñu xari dëkk bi loo xar yooyu nag jënd ko tabaski ko taxut amum tabaski ndax matutum tabaski bu dee juróomi weer dong la am ëpp suñu xari suñu suñu xari dëkk ca bëjjën ya ca geen baag wëq waag lépp yàlla soxlawu ci rëyaay bi waaye lam ca soxla mooy nam ko santaane ku ko ne defe kon jënd am xar lim bu bari ndax rëyaay ba ak marque ba mu yor nam tudd taxut mu doon am tabaski yàpp dong la te ñuy fàttali ne jamono dafa gaaw tey dox te bés ki daaw mbooloo ma bari ñoo ko fekke woon am na ñoo xam ne bàyyi ko nañ fi ñooñu moom seen seen seen tabaski waxatuñ ko moom luñ ca amutoon daaw ci tabaski dutuñ ko am ñi ko fekke ren nit seen tabaskim daaw weesu woon na bu baaxutoon jeex na kon bokk yooyu it yu mat a bàyyi xel la yàlla na ko yal déggloo te fekk loo ñu koy ati at te musal ñu ci galgali seytaane ak i pakkam ndax yooyu yëpp seytaane rek moo ko mënal nit fexe ba ngay kër-kër yi nekk ci jaamu yàlla te doo ci am tuus seytaane rek moo ko na nit yàlla noonu yàlla dooleel musal seytaane ak i pakkam